maalikuna saatiruna raasiquna ku sopp Seydi Hadji Daawda dafa ni ñu màggal ko sëriñ ma di samaam nee na alhamdulillahi lazi xaaliquna maalikuna saatiruna raasiquna mawlidoo xaniyuna akaramtana laylataho rafiona bàyyi sëriñ Souleymane góor si ruq bi nee na defal ni ñu màggal ko sayanana tariqo bi kullina ataytana bi fadlihi maatamana Sidi Haji Daawuda nee yaa rasulallahi أحتيتنا بفضله ما تمنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أسل بجميعنا مستكى مام داونين يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أسن جميعنا مستكا يا نفسنا نلت المنا أبصرتنا دبلني تبرم راود بي بسم الله مي وي aji daawuda ciise ku sër mbër de kaamil nga jog bàkk ko may way sëriñ daawuda ciise sëmbar di lu dul jaamu yàlla xamul xaaji daawuda da koo mbir lu way ne man soo laajoon ma wax mbiram lu tee kon mu laaj ma mbiram aaji daawuda ne man soo ma ma wax mbiram daawuda moo fi fekkoon di foot ay ndënd saxooy dóori làmb di tëggi sabar samaam ñëw gindi nit ñi julli tey di jàngi alquran di géewub sikar ku sopp Haaji Daawuda defal nii ñu màggal ko maam Daawuda satum ma di faana bu doon yaa di ceeboo nekkoon tey ji ma doon sab géwél def leen nii ñu màggal borom rawte bi xalmul wilaayat ku sopp si xot yand fani maktumun sarairo lawla رسول لكان سيدي أحمد التجاني ما لنا للكون سوى الرحمن والمصطفى وسير سيدي أحمد التجاني ممد كل عون يا رحمن أبي الحباس أحمد التجاني ما شاء الله nee na ñu ngi ñuy ñëpp. di siyaara it ñëpp. di ndokkeel itam ñëpp. kàddu suñu kilifa. nee na si kàddu seeni kilifa. seeni sëriñ. nee na ak kàddu bu sunu baay Alaaji rakkam. Cheikh Ahmed Tidiane. sunu baay Cheikh Ahmed Tidiane. Alhaji Omar Cissé. Alhaji Omar Cissé. Alhaji Omar Cissé. nee na ñu ngi nuyu it. si kaddu alkaali. si kaddu alkaali Ibrahima Cissé. di seen i mag. di seen kilifa. si kaddu kilifa ba tey. nee na mu ngi nuyoo ba tey si kaddu sunu kilifa. Alhaji Subayru Cissé. kàddu si kàddu ak kàddu kàddu Mouhamadul Kabir Mouhamadul Kabir xalifa sëñ Babou Cissé kàddu waa si kàddu waa baati yëpp kàddu waa baati yëpp nee na ak kàddu waa yépp yëpp kàddu yi du lenn nee na kàddu yi itam du lenn cant lu cant rek cant goo xam ne nee na cant goo xam ne làmmañ lottu na si tudd ko tabaarakallaahu nee fa tabaarakallaahu mu jógee ci kilifa yi ñu wax mu ne kàddu yooyu mu ngi jógee ci kilifa yi mu tudd jaar ci mboolem koo xam ne mu jaar ci mboolem koo xam ne jëf nga jëf nga wala nga wax wala nga dox wala nga dox lenn ci lenn ci lenn lu taaral bis bi ci lu taaral bis bi ñëpp nag nee na ñëpp nag li ci gën a nee na li ci gën a kowe ki ci gën a kawe. ki ci gën a kawe. ba ci ki ci gën a suufe. ba ci ki ci gën a suufe. waaye kàddu nee na waaye kàddu cant googu. dafay njëlbeenu dafay njëlbeen. ñu ngi koy njëkkee ci yàlla. nee na ñu ngi koy njëkkee ci yàlla. moom mi nga xam ne. moom mi nga xam ne. lu am mooma. lu am mooma. lu ñàkk mooma. mooma. nee na fa tabaarakallaahu. cant bu baax a baax. nee na mu ngi cant bu baax a baax. ñi nga ki nga xam ne. ki nga xam ne. moom lañ bis bi. moom la tuddee woon bis bi. muy maam Assane Faana. muy sunu maam Assane Faana. di waay jur si. di waay jur si. Baye Ousseynou Male toog. Baye Ousseynou Cissé mii toog. Serigne Samba Male. ak Serigne Samba mii toog. ak Alhaji Daouda Male nga xam ne. ak Alhaji Daouda Male nga xam ne. li nopp dégg. li nopp dégg. waaye juróom wu jigéen. waay juróom wu jigéen. daanaka lu mu amoon si njabootu góor. daanaka lu mu amoon si njaboot bu góor. yàlla dogal mu wuyu boromam. yàlla dogal mu wuyu ji boromam. keroog ba mu ganee àdduna. nee na keroog bi mu ganee àdduna. waay juróom ñëw si góor gi. waay juróom ñëw si góor gi. ndax jamono boobu. nee na ndax jamono boobu. mag ñi góor gi léegi lañ xamoon. nee na mag ñi góor gi rek lañ xamoon. ah sa jigéen ba dee. nee ko ah sa jigéen ba dee. mucc na mucc na. waaye am na góor nag. waaye am na góor nag. waaye nag pour mu dund mooy wax ji. nag pour mu dund mooy wax ne ko tuddee ma ko. mu ne ko tuddee ma ko. dana màgg. dana màgg. dana barket dana barke. nee na fa tabaarakallaahu. loola def na ko geneen góor. nee na loola itam góor gi def na ko geneen góor. ki ñuy wax Alaaji Daawuda. ki ñuy wax Alaaji Daawuda. nekk Isra. area council Birkama. nekk ci area council Birkama. xale yi t yi ñu sol nii yëpp. nee na xale yi t yi ñu sol nii yëpp. dippi fukki at. dippi fukki at. at bu jot moo koy pirinti ci xaalis boppam. at bu jot moo koy pirinti ci xaalis boppam. ren bi ma ko ko waxee. nee na ren bi mu ko ko waxee. ba fan yi mujj yi. ba ci fan yi mujj ma kool soxna si wax ko ko. mu kool soxna si wax ko ko. mu ne ma Daawda mu ne. mu ne ko Daawda mu ne. moko warul bopam neena lolu moko warul bopam ko momu nak bayam neena nag momu nak bayam dafa Yeha xam sidi haji Daawda. dafa Yeha xam sidi haji Daawda. amatul dom bobu boobu amagul doom. jabaram yi magge nañ. jabaram yi magge nañu. nako suma amon dom neena ko suma amon dom dina la ko tuddé la ko mu ne da nga am dom de. da nga am de. demee ñibi. bi mu demee ñibi. moom góor ga. moom góor ga. tukki Kaffrine. dëkk tukki Kaffrine tukki Kaffrine. ñu may ko fa soxna su soxna. ñu may ko fa soxna. mu ñëw. mu ñëw. yàlla dogal mu am ca doom. yàlla dogal mu am sa doom. mu tuddee ko Daouda. mu tuddee ko Seydi Aji Daouda. kooka moo liggéey. nee na Daouda mooma ñu tuddee nag moo liggéey. tiset yi. fa tabaarakallaahu. nee na fa tabaarakallaahu. kon njabootu maam Assane Faana. nee na kon njabootu maam Assane Faana. seen teraanga yi ngeen defal njabootu Alhaji Souley. seen teraanga yi nga xam ne defal ngeen ko njabootu Seydi Hadji Souleymane Cissé. dëgg yàlla rëy na lool. nee na ndax wax dëgg yàlla rëy na lool. bég nañ ci lool. nee na bég nañu ci lool. tabaarakallaahu. nee na fa tabaarakallaahu. lépp yàlla na yàllay kese. lépp yàlla na nekk yàllay kese. jubluwaay bi de yàllay kese la. nee na jubluwaay bi moom yàllay kese la. ndax góor gi lañ ko wax. nee na ndax góor gi lañ ko wax. ne ko dañ ko bëgg a tuddee kenn ci taalibeem. nee ko ndax dañ ko bëgg a tuddee kenn ci ay taalibeem. tuddee dara jaalee ko kenn ci ay wëllëreem. dara jaalee ko kenn ci ay wëllëreem. tànnal ñu góor gi. mu tànnal leen góor googu. dara jaalee gi it. dara jaalee gi tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. mu dara ko xaritam. mu dara jaalee ko xaritam. nekkoon wëllëreem. nekkoon wëllëreem. nekkoon wéttalam. nekkoon muy sëriñ bu mag. muy sëriñ bu mag. borom xam-xam. muy borom xam-xam. daan yar jaami yàlla yi. daan yar jaami yàlla yi. daan liggéey tarbiya nit ñi. daan tarbiya nit ñi. da xamal yàlla. di leen xamal yàlla. tabaarakallaahu daan toj àll yi. nee na fa daan toj itam àll yi. liggéey ngir liggéey. nekkoon ku ñàkk caaxaan. nekkoon ku muy Serigne Abd Alhaji Abdoulaye Ñoxete Seck. tabaarakallaahu. nee na fa tabaarakallaahu. loola le. nee na loolu noonu. bu ñu ko waxee góor gi. bu ñu ko waxee góor gi. mu rafetlu ko loolu. waaye balaa ñuy wax loolu. waaye balaa ñuy wax loolu. ñu jokkoo ak Aji ñu jokkoo ak Aji Bamba. ak Aliou mii. ak Aliou mii. nga xam ne eh, nga xam ne jarbaat la ci sëriñ bi. moo xam ne jarbaat la ci sëriñ bi. bëgg nga jokkoon ñu ak xalifa bi. nga ne ko dañoo bëgg nga jokkoon ñu ak xalifa bi. xamal ko ne lii lañ bëgg. xamal ko ne ko lii la bëgg. te di jéggalu nag. te di jéggalu nag. waroon a jël délégation. dañoo waroon a jël délégation. dem ba moom. ñëw ba ci moom. laaj ko ci ndigal. laaj ko ci ndigal. waaye xat-xati jamono la. waaye la. mu nangul leen loolu. tabaarakallaahu nee na fa tabaarakallaahu tey bi ñu leen gisee nee na tey bi ñu leen gisee ki gis ni ñu ñëwee ñoom ki gis ni nga xam ne noonu lañuy ñuy ñëwee ñoom xam ne ñoom ñooñu gën a téye bis bi xam ne ñooñu noonu ñoo leen gën a téye bis bi doomam barki démb nee na doomam barki démb dañu dajee mu ne ma nee na dañoo dajee mu ne ko sëriñ bi bi ñu jullee àjjuma nee na ko sëriñ bi bi ñu jullee àjjuma wax na ne nañ def dog wax na ne nañu def dog ñaan ci bis bi. ñaan ci bis bi. kon jàpp na bis bi. nee na kon kooku sëriñ Ahmad Saloum. nee na kon fa tabaarakallaahu sëriñ Ahmad Saloum. ak sëriñ Mouhamadul Amin mii. ak Cheikh Mouhamadul Amin mii. nga xam ne mooy doomu euh, sëriñ euh, Alaaji Moot euh, Alaaji Moot nga xam ne mooy doomu sëriñ Alaaji Moot Alimatu. nga xam na yàlla yokk leeram. nga xam ne yal na yàlla yokk leeram. toog. nee na mu ngi nii toog. njabootu eh, Baye eh, eh, njabootu sëñ Abdoulaye Cissé sëñ Abdoulaye Seck. nee na njabootu sëñ Abdoulaye Seck. sëñ daam waaw kay. sëriñ daam. njabootu sëriñ daam. njaboot ak sëriñ daam. tabaarakallaahu ñoom nag jël nañ bis bi. nee na ñoom itam téye nañ bis bi bu baax. ànd ak ñoom. tabaarakallaahu lii mbégte la. nee na lii mbégte la. lii nag dafa war a am. nee na lii nag lu war a am la. ndax dafay tasaare. nee na ndax dafay tasaare. islam islam. ak taaram ak taaral ko. dafay taxit. dafay taxit. li ñu junjoon noon yi nga xam ne. dafay junjit ñi nga xam ne li ñu junjoon noon yi nga xam ne. biir ñu ngi ne ñu ngi si biir islam. ñu ne ñu ngi si biir islam. bëgg a jël tariixa yi. bëgg a jël tariixa yi. def ko muy ngàndaay. jël ko muy ngàndaay. ngir xeex islam. ngir xeex islam. suñu wanee ne ñun waa tariixa yëpp. mu ne bu ñu wanee ne ñun waa tariqa yi yëpp benn lañu fa tabaarakallaahu kon dafay bi kon nee na sëriñ bi kon bég nañu lool ci taxawaay bi ak tiraanga ji yal na yàlla gërëm su ko defee ñu ngi sant bu baax a baax nee na su ko defee ñu ngi sant bu baax a baax Euh, borom programme bi. borom bi. muy sëriñ bu mag. muy sëriñ bu mag. di borom xam-xam. di borom xam-xam. tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. nit kuy yare. ngir yàlla. nit ku xam yàlla. nit ku xam yàlla. di xamle ya. te di ko xamle itam. muy saayir bu mag. muy saayir bu mag. muy Cheikh Mouhamadul Amine Gueye. xam ne fii ci nga xam ne fii ci baati. yàlla kese moo ko fi yëkkati. yàlla kese moo ko fi yëkkati. moo ko fi indi. moo ko fi indi. xam na ne li mu fi yulli ci xam-xam. kenn ku nekk xam na ne li mu fi yulli tey si xam-xam. ku ko ko déglu. ku ko déglu. da nga xam ne kii. da nga xam ne kii. li muy wax làmbatuur. li muy wax làmbatuur ko daf koo xam. tabaarakallaahu sëriñ Mouhamad Guèye. nee na tabaarakallaahu Cheikh Mouhamadul Guèye. njabootu Haji Souleymane yëpp. nee na njabootu Seydi Haji Souleymane yëpp. Daawda yëpp. njabootu Seydi Hadji Daawda yëpp. ñoo ngi lay sant. yaa say bokk. ak say soppe. tabaarakallaahu. sant bu baax a baax waa dëkk bi yëpp. nee na mu ngi sant itam bu baax a baax waa baati ndar yëpp. rawatina waa mbaro yi. rawatina itam waa mboro yi. nga xam ne ñoom ñii seen yaay foofu la dëkk. rafetal bu baax. mu ne fa tabaarakallaahu rafetal nañu bu baax. ci bis bi ci bés bi. di santit di santit waa mbayeen yi. waa mbayeen yi. tabaarakallaahu baabu mbay. fa tabaarakallaahu baabu mbay. def nañ teraanga yu mat sëkk. nee nañ def nañu teraanga ju mat sëkk. ci bés bi. moo ki rakkam. ak i rakkam. tabaarakallah. tabaarakallaahu. di sant bu baax a baax. nee na di sant bu baax a baax a baax. waa Cekkeen yi. waa Cekkeen yi. waa Njoolaa Kunda. waa Njoolaa Kunda. ñoom Madi Ndaw. ñoom Madi Ndaw. képp koo xam ne rek. képp koo xam ne rek. tabaarakallaahu dëkk nga si dëkk bi. dëkk si dëkk bi. ñu ngi lay feeñalal suñu cant. nee na ñoo ngi lay feeñalal seen cant. waaye di santit suñuy bokki bopp. waaye itam di santit seen i bokki bopp. suñuy rakk. nee na suñuy seen rakk. Serigne Keba Serigne Mansour. muy Serigne Keba ak Serigne Mansour. ak Serigne Daouda. soxna yu jigéen ñi. ak Seyda yëpp mu ngi leen di sant. tabaarakallaahu. nee na fa tabaarakallaahu. waa Baati Society. nee na itam mu ngi sant bu baax waaye Baati Society. nga xam ne Seydina Omar mooy président bi. nga xam ne Seydina Omar mooy président bi. tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ngant moo ko tax a dellu. nee na ngant kese moo ko tax a dellu. léegi maa moom ñoo ànd. waaye ba léegi moom ñoom ñooy ànd. tabaarakallaahu Baye Ousseynou Mële. nee na fa tabaarakallaahu Baye Ousseynou Mële. nga xam ne jikkoy la amee. nga xam ne jikkoy pusa rek la amee. ñaw rek. ñaw rek la fi nekkee. tabaarakallaahu yal na yàlla laf cat. nee na fa tabaarakallaahu yal na yàlla lafal la cat. sant Cherif bii toog. nee na mu ngi sant itam Cherif bii toog. sant Madi Toobo. di sant itam Madi Madi Toobo. tabaarakallaahu maama faana maama faana suñu doomi bàjjan la seen doomi bàjjan la waaye yaakaar naa tey moom xam na ne waaye yaakaar naa ne tey moom xam na ne ñooy xam na ne ñoom ñooy njaati géem waaye nijaayam du njaati géem mu ngi sant sëñ Cheikh Tidiane Cissé nee na itam mu ngi sant sëriñ Cheikh Tidiane Cissé xam ne baayam moo doon sëriñu suñu baay nga ne baayam moo doon sëriñu seen baay muy. bay maam seet kilimaan muy seet kilimaan. tabaarakallaahu. nee na fa tabaarakallaahu. jàngalekatu alquran la. jàngalekatu alquran la. yarekat la. yarekat la itam. yàlla may ko ndam. yàlla na yàlla may ko ndam. mu ngi sant borom rajo bi. nee mu ngi sant itam borom rajo bi. muy xaadim. muy xaadim. ren moom xaadim. nee na ren moom xaadim. mention très bien. mention très la ameel. la ñu la ameel. yow ak Baye Ma Diop. yow ak Baye Ma Diop. depuis dimanche ñu fi di xaar bis bi. depuis ba léegi ñoo ngi fii di xaar bis bi. tabaarakallah. nee na fa tabaarakallaahu. sant waa Badru TV. sant itam waa Badru TV. Euh, seen njiit di Saalum Cissé. seen njiit di Saalum Cissé. ak waa Baati TV. waa Baati TV. rawatina Habibou Mbaye. ak waa Pakala FM. ak waa Pakala FM yëpp. lépp loo xam ne lu ñu war a jàllale la ci bis bi. nee lépp loo xam ne lu ñu war a jàllale si bis bi. def nañ si facilité. def nañ si bu baax facilité. nee na moo ngi leen di sant di leen gërëm. alxaaji Omar Sall Kër Sambooy. nee na alxaaji Omar Sall Kër Sambooy. nee na mu ngi nële toog. moo ma moo ko woo sax. xàmmee numéro bi jaar si turam. nee na mu xàmmee numéro bi jaar si turam. dama foogoon ne mu ne ko ah dama foogoon ne xàmmee woo ma. mu ne ah, bi laa doon laajte. mu ne ko seen bis bi laa doon laajte. bàyyi na ko xel. nee na kon kooku bàyyi na xel bis bi. jaatigeem bay baaba. ak jaatigeem bay baab mu. bay baaba. bay baaba. ak. bay boro. nee na moo ngi leen di sant bu baax. nee na ustaas mbuub itam noonu. nee na moom moo ko woo ba tey itam di ko laaj bis bi nee na kon loolu kooku bis bi ñor na ko nee na sant nañu ñëpp nee na képp koo xam ne tudd la ci làmmañ nee na tudd na la ci xolam bi nee na bu fekkee ne xol bi tuddul la xolab sëriñ bi itam tudd na la nee na ndax fa tabaarakallaahu mu ngi ci ruq bi rek liy lépp. waaye luy dox lépp. mooma. am na am na mbir yoo xam ne. nee na am na mbir yoo xam ne. buy dox. buy dox. a doxal. borom bu ko war a doxal. dafay benn place. dafay toog benn place. téye ordinateur am. téye yoo xam ne. na am na mbir yoo xam ne. fa tabaarakallaahu noonu rek la mën a demee. nee na mu ngi sàkku itam ci mbooloo mi. ñu ñaanal ko yàlla. ñu defal ko itam ñaan. sant soxna Sëtu nee na itam moo ngi sant bu baax soxna Sëtu Aay. Nganda. nee na fa tabaarakallaahu. moom moom. moom moom jigéen gu man góor la. ne wax dëgg yàlla. Aliou Seck comme ni ñu ko waxee léegi moo doon nee na moo doon seen buntu darajaal bu ñu darajaale woon si darajaal gi nga xam ne moom lañ darajaale woon lii sëriñ bi fa tabaarakallaahu nee na fa tabaarakallaahu bay basiiru male bay basiiru male koy sant di ko gërëm ñoo ngi koy sant di ko gërëm nee na ak seen baay bay ajji képp koo xam ne rek ak képp koo xam ne rek activité. yaa ngi si. sa activité sa activité. jëm na ci bis bi jëm na ci bis bi. rawatina xale yi dëkk bi. na rawatina itam xale yi dëkk bi. ak waa waa Daara ja. waa Daara ja. Oustaz Daouda. Oustaz ak ñoom Moustapha. ak ñoom Moustapha. ak Samba Cissé. ak Samba Cissé. ñoom ñi nga xam ne jaar nañ si Daara ji. ñoom ñi nga xam ne jaar nañ si Daara ji. neen fa tabaarakallaahu. xaritu boppam. sama wéttal. wéttalam. Ibrahima Cissé. muy Ibrahima Cissé. foog ñu na fokk mu sant ko. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. moom ak Faafa Cissé. fa tabaarakallaahu ak Malick Cissé. fa tabaarakallaahu ak Malick Cissé. sa biir kaama. nee na fokk mu sant leen gërëm bu baax baaxa baax nag. ñëpp. nee na ñëpp. sant jéggalu bu baax. nee na sëriñ bi ñu ngi jéggalu bu baax. si jotaay bu yàgg. si jotaay bi nga xam ne yàggal nañu ko. ñu ngi jéggalu bu baax. nee na moo ngi jéggalu bu baax. nee na ñoo ngi jéggalu bu baax. si jotaay bu yàgg bi. nee na yal na yàlla gërëm lépp. nee na yal yàlla mottali lépp. ñu jëlee si yokkute. ñu jëlee si yokkute. si saayir ak si baatin. su ko defee li ñu def nii. nee na su ko defee lii ñu def nii. tàmbali tàmbali mala nañu fexe nañu fexe continuer ba lolou nonu mu meuna a continuer mu meuna dox ne njabot gi yeb jëriñu ci insha allah rabbi kon sharif neena kon sharif jotaay bi sa jotaay la jotaay bi sa jotaay la ñu ngi jéggalu sax neena xamna ne ñu ngi jéggalu sax waron nañ koy laajal hadiya waron nañ koy laajal hadiya waaye incha allah danañ ko si wutu mbooloo mi. waaye incha allah danañ si wutu mbooloo joxeel ko li mbooloo mi waroon a joxe. joxeel ko itam lu mbooloo mi waroon a joxe. ñu ngi lay sàkk nga def ñaan. ñu ngi sàkk itam nga def ndax jataay bi yaay borom. moo ñu bàyyiloon xel ëllu bayti. nee ndax yonent bi moo leen bàyyiloon xel ëllul bayti. nee nañu ci bàyyi xel bu baax a baax fa tabaarakallaahu wasalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu Ibrahima Cissé <laughs> Ibrahima Cissé nee muy Ibrahima May muy Ibrahima May fa tabaarakallaahu moom la ñu waroon a sax nee na moom la ñu waroon ak sëñ Lamine tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu moom mi nga xam ne depuis suba ba léegi. moom mi nga xam ne depuis suba ba léegi. bépp délégation bu ñëw mu ngi ko bind. bépp délégation boo xam ne ñëw na mu ngi ko bind. incha guddi gi danañ ko jàllale. incha allahu guddi ko jàllale. Sabaxa Dieng. fa tabaarakallaahu sama xarit. fa tabaarakallaahu xaritam. nee na moo ngi koy sant di ko gërëm. ak Kéba Boye. فتبارك الله نينا كون مو mu فوف كادو kàddu با rek ba ان شاء الله كون ني ñu لوخاي يا شيخنا ولمن سبقنا من اللهم استرنا وعافنا وخوينا ونجنا من شر حاسد وسر كاهن وسر جن وسر نفاذات فينا قد ومن شر حاسد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح سات بيننا ولا تجعلنا خلا للذين آمنوا اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يحرمنا من أمور الدنيا والدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأخننا بفضلك من سواك وكن معيسا لنا من سرس حسد مع شر فم وشر عيني الله وشر شحر وشر قلب انسه مع جن وصلاه سمي الله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 صلاة تسفينا بها وتسفى مرضى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسليا على النبي وسلم واخذ به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين